direction générale des élections dina gis erreur bu opposition bi def mais bu nekkee erreur bu parti au pouvoir du ko gis yooyu pour l'éviter la meilleure façon c'est d'avoir et ces nouveaux profils ku mel ni Pape Djibril et Guy non c'est un plaisir Guy Marius moom Guy Marius rek groupe parlementaire la <laughs> c'est Guy Marius bu ñu ko boolee ci benn groupe <laughs> Guy Marius je sais que il va créer son groupe parlementaire moom kese ndax dossier yi yenn ci waa FRAPP war koo teg ki table déjà moom nee na sax na ci sab Guy Marius c'est Pape jibi ak ak ak Thierno Alassane ak ak Pape Diop rôle boobu rôle bu ñu war a joué. duñu dugg ci euh, dimension voilà euh, wàllum santé beeg yooyu dañuy accentuer wu par rapport ak li nga xam ne mooy montage financier bi ak commerce yu ndaw yi nga xam ne nekkoon na autour euh, de cet hôpital docteur en tant que économiste noo jàngatee bi les montage financier ñu ngi wax trois hectares yoo xam ne rek hôpital Le Dantec moo ko moo woon moom mais pour ce montage financier pour financer li nga xam ne mooy tabaxini bile hôpital ils étaient obligés euh, de vendre ce terrain je pense ñoom ñoo bëgg a obligé seen bopp mais ils sont pas obligés de vendre ce terrain là te loolu moom je pense que état xam nga état li ñu naan ñu koy gérer moomuñu ko mhm. dangay ngay tey bàyyi ko fi sa moroom ñëw mais euh, ñi fi nekk tey dañoo euh, jàpp ni c'est comme si bu à ñoom ay état dootul am mhm. pour man état war naa jombale boppam jaay suuf fi fi Dakar toll <laughs> jaay suuf état war na ko jombale boppam parce que suuf bi lu muy gën a yàgg muy gën a cher moom bu ko soxlawul nañ ko bàyyi ci génération yi di ñëw mais suuf soo xamante ni dëkk bi nu muy màggee kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. ma man je pensais que li gënoon yomb vraiment bu doon hôpital rek moo leen taxoon jóg. Mm-hmm. man de pour man six hectare la trois hectare la hôpital bi occupé. hôpital bi màgget na war nañ ko construiraat mhm. gis nga war nañoo déclenché benn liggéey ci yeneen trois hectares commencé faa tabax service bu pare ñun la yow jógal ci point A dem point B mhm. bu ñu paree ñu toj foofu sans problème kenn du ko yëg kenn du yëg ni sax ni hôpital baa ngi baa ngi yëkkati da ngay ñëw gis foo xamante ni espace am na fa yow espace ngay wër mhm. mais moi je pense que fi nga xamante ni léegi falo la hôpital bi nekk bu ñu ko tojee mais ñu reboiser ko def fa ay garab pour nit ñu nekk ci hôpital bi sax mën na nooy mhm. air pur mais dakaar moo xat Dakar waratul président sax waratul nangu ci biir Dakar plateau moom benn espace boo xamante ni dina bàyyi kenn di fa construire Dakar dafa xat Dakar kenn mënu fa dugg mais avec les embouteillages yi am Dakar nga war faa tabaxaat beneen loolu du sax xel moi je pense que état bi war na jombale boppam jaay ay ay trente hectares loolu loolu c'est vraiment moi je dis que je préfère mhm. ko état bëggee jaay sénégalais yi ku wut benn crowdfunding jënd ko mayaat ko Sénégal Mm-hmm. ñu xool étape muy def. mais gis nga euh, explication yi nga xam ne directeur FONSIS def na ko par rapport ak 3 hectares yooyu nga xam ne état bu Sénégal fas yéene ko ko jaay à 1 million le mètre cube je pense que est euh, bien ça. Mm-hmm. Euh, dafa nekk aussi benn mal nécessaire boo ko seetloo parce que nee na fu mu toll nii dëkk bi ak Covid 19 ak li nga xam ne moo nekk guerre russo-ukrainienne gis ngeen ne état bu Sénégal dafa nekk si wàllu wàllum subvention boo xam ne à hauteur de 500 milliards de francs CFA tey jii est ce que nañu wax ne carrément l' état du Sénégal euh, fu mu toll nii les caisses sont vides et ils étaient obligés aussi docteur de vendre ce terrain. <laughs> kon du ma ko xool ils sont pas obligés loolu du ma ko bi ñu def mooy ba ñu tabax stade bi ñaar cent quarante trois fan la ñu jaay pour tabax ko. ba ñu bëgg fan la jaay. xam nga dafa dafa ñaaw sax ci imaginaire nit ñu naan lépp loo xamante ne bëgg nga ko def ba nga koy def. jaayoo dara da ngay génn xaalis def ko ci mais bu dalee ci hôpital nga xamante ni ñëpp ko bokk ñëpp ko soxla surtout hôpital boo xamante ni day accueillir ñi gën a ñàkk mhm. xam nga hôpital Le Dantec loolu mooy problème bi yàlla xam na man musuma dem hôpital mhm. <laughs> dama koy romb dama dem Pasteur mhm. yàlla xam na musuma faa dem xaw moo tax euh, xaw ma sax euh, trois hectares fu mu nekk fu mu dul nekk mais jaay hôpital ci boppam déggin bi sax dafa ñaaw jaay terrain pour tabax hôpital déggin bi dafa ñaaw premièrement loolu c'est une erreur te je pense que président Macky Sall xëy na bu ko xalaatoon bu ko naroon dina ko arrêté parce que amul benn sens président Macky Sall dafay nekk de 2012 à 2024 mais boo fi nekkee 2012 à 2024 jël na décision moom le président bor Sénégal mu leb ba egg fi fi ba dépassé fi fi ñu war a yem xam nga 70 pour cent la ñu war a yem ci endettement. Mhm. dépassé nañ ko. voilà cest à lépp lu président war a leb Sénégal Macky Sall leb na <laughs> donc jeex na. à partir de ce moment mënatul leb. finalement il est rattrapé par ses propres erreurs. mais tout à fait et en plus léegi à partir de ce moment mënatoo leb mais bul jaay suuf si yëpp nga xamante ni beneen président bu ñëwee dootul mën a leb dootul am suuf gérer réew mooy nga yow nga nga gérer ba fi nga mën a yem bàyyi keneen continuer continuité la. surtout à des étrangers. mais loolu nag mooy tax saa yu crise amee mu gën a metti. Mhm. crise li koy li koy mettul ci réew mooy euh, doomi réew mi bu ñu yorul xaalisu réew mi. Mhm. amul gis ma euh, projet bu structurant. boo xamante ni mag na ñu gis ci doomi réew mi d'habitude eh, biir dakaar man mënuma comprendre biir dakaar état bi du ko jaay gëw man loolu mënu mënul dugg sama bopp biir Dakar nga xamante ni état bu fa amoon sax deux hectares na ko reboiser def ko ay arbres nit ñi nooy mais Dakar les gens étouffent y de voitures kenn mënut a dox mais mënoo yow espace bu ndaw rek ngeen tabax def ay R plus 10 ay R plus 11 ça n'a pas de sens pour man daal président de la république bu ko bu ko mënta bañ a jaay na ko Sénégalais yi cotiser jënd ko mayaat ko Sénégal. Mhm. moom dina xam secteur euh, privé est-ce que mënuñoo wax ne fu mu toll nii euh, loolu dafay wane rek euh, ñu néewee ci wàllum koom. néewuñu si suñu secteur privé néewuñu doole dañ leen a néewal doole. Mhm. xam nga li gën a metti njàpp boo mënee benn mbir nekk Sénégal set nga mën ko yow ma xam ne yow mën nga ko saa yu may wuti ko ko defal ma tëb la. ñi ci biti dañu la sax dañu la sax dañu la sax wóolooti dañ naan ah yow bu dee yow. ki ñi dëkk seen waa kër wóoluwuñ la ñi dëkk seen kër wóoluwuñ la mhm. à partir de ce moment beneen dëkk du leen wóolu or secteur privé boo gis ci àdduna président dëkkam moo koy wóolu mhm. ba pare euh, branché ko ci yeneen dëkk ci àdduna bi mais yow bu dee say propre marché damay naan souvent Sénégal bu mënta gagné marché biir Sénégal noo koy gagné Gambie wala nga gagné ko Côte d'Ivoire mhm. mais bu ñu la dooleeloon nga gagné marché bii ci fii ci biir Sénégal booy génn di nga am doole mënuma nangu sénégalais lu mu mën ñu koy jox beneen beneen beneen nit ku jóge bitim réew parce que tey euh, covid bi rek ba crise bi amee dëkk yëpp di cotiser pour jàppale seen réew mm-hmm. ñun président de la république ba mu bëggee ñu ko jàppale secteur privé Sénégal mat joxuñu ko lu mat dix milliards alors que secteur privé marocain jox na président lu mat milliards parce que même Sénégal président roi marocain bi fexe na ba entreprise marocaine am fi ay marché bi te yow sa entreprise mënuñoo am marché sax biir Sénégal yow boo mënta am marché biir Sénégal foo koy amee. Mhm. donc nu ñu néewalee doole secteur privé national. loolu fii lay wane boo demee ba sonn doo amat amati parce que dañoo amoon taux de croissance pendant presque huit ans boo xamante ni investissement public moo indi woon croissance bi. Mhm. moo doon def xaalis rek di leb léegi PIB bi di yokk parce que PIB c'est la richesse créée à l'intérieur. Mhm. du territoire maintenant boo demee ba mënatoo leb PIB bi bu da ngay soxla sa secteur privé mu continuer euh, kii boobu dynamique bi mais boo ko reyee léegi yow essoufflé nga secteur privé bi amul ay moyens. léegi nag fi nekk nii coono gi dikk na ba xëy na jarul jaay suuf nag mais euh, nul ne sa se prévaloir de sa propre turpitude ñoo jëloon yoon boo xamante ni ñëpp xamoon nañ ni amul amul issue. Mm-hmm. lépp kenn mënu cee dëkk. parce que di nga lépp di nga lépp à un yem nga fi nga war a yem ci lépp. Mhm. léegi nag boo demee ba mënatoo lépp dangay ngay tourner xool léegi lan laay jaay mais bu arrêté nga taw nga réfléchir nan lay def ba développer sama économie avec ñi ñi nekk ci biir réew mi bu ko joxoon sénégalais. à défaut de jaay peut-être location. mais mais loolu tax ñu ñuy loué fu hôpital nekk du du du teggin sax loo mën a tabax ci wetu hôpital bi est-ce que ñu ngi xalaat bu ñu ko jaayee nit man su ma ñoon jënd ci par exemple 1000 euh, mètres carrés man mën nañ maa wax man laa ci tabax maa ko moom. Mhm. ci wetu hôpital am na yoo xam sax nangoo ko. pour man mhm. hôpital ay nit nekk fa euh, nga bëgg a ñëw dagg ay parti xoolal hôpital fan nu mu toll mhm. nañu fexe ba euh, defar trois hectares yooyu nañ fa construire hôpital bu bees bi ñii di toxoo fii di dem fee loolu mooy dëgg mais mhm. fi ne ni jéem a wax war nañ koo tabax mënul ñàkk mais nañ ko am nañu espace nañ leen tabaxal seen espace léegi bu ñu paree sax léegi 3 hectares yi nga xamante ni dañoo war a toj bâtiment yooyu waaye ñu jëm a xool ñu koy jaay mais mënuñu leen a man pour man daal euh, ñi ñàkk. c'était mal organisé. mais ñàkk. nga xam ne hôpital bi pour ñu ñàkk la léegi nga war leen yóbbu ay Touba dalal jàmm yaa ngi xalaat seeni i moyens ku ñàkk nga war a jégale Dakar dem ba Touba pour faju ji ñëwaat mm-hmm. mais yooyu pour man am na yoo xamante ni euh, gisuma explication bu rationnel bu ñu mën a teg ci table ji da nga jàpp ne terrain bi leen soxla mais c'est tout comme <laughs> <laughs> c'est tout comme c'est tout mais amul amul benn explication boo xam mën na justifier gaawantu bi pour man et puis booy booy toxal hôpital xam nga nu ñuy toxalee hôpital bërëb boo bëgg a toxal sax yéen bu ngeen bëggoon toxal fii Sénégal set da ngeen ba chaque ngeen ah, bi na na toxu dem fële mhm. na toxu dem fële nit ñi dem ba commencé tàmm feneen fu dul foofu mhm. yéen bu ngeen demee ba toxu kenn du xamal ni sax toxu ngeen parce que tàmmal ngeen yeneen bërëb yi mais xëy suba rek mel ni ku yor këru néeg booy luyee jël ba génn leen dem fële mhm. non loolu loolu état état war na jëmbal boppam manque d'empathie euh, euh, euh, wàllum business bi aussi ñu loon gis côté hôpital Dantec aussi parce que fu mu féetoo ak tamit